amee ay wax day bari waaye loolu yëpp normal c'est normal ku nekk ci conseil bi war ngaa mën a yëkkati sa loxo ne man mii dama bëgg a jiite Dakar parce que dangaa bëgg dëkk bi dangaa bëgg sa réew maa ngi tàllal loxo ñëpp ñëpp musaa siim maa ngi lay oo maa ngi lay tàllal loxo li nga déclaré ci presse bi bul ko def Moussa sa yaay la sa jigéen la sa mag la ñëwal ànd ak xeex depuis 2009 kon nag bu ko